man tàmm naa bëri poids ma problème poids léger ak poids lourd aw ma problème boobu non. waaw man moom samay combat amatuma lu ma yàkkamti mais kii moom duma ko xaar. doo bu sifle rek waaw waaw bi yoon ndax la ma fa jëlee neex incha allah. doo ko xaar ci dara non non du ma ko gërëm moom d' abord. moom rek sama carrière yëpp moom am courage fekk sama mbuur ñu def face à face kon loolu dama koy sant gërëm baax a baax di wax waa mbuur. nañu préparé dalal ko moom dalal waa Gaston production si jàmm ak salaam ak fair play ñu génn mobilisation ñu dalal ko sunu gan la le 27 ñu fekk ko Dakar daan ko incha allah des na yeneen combat kon dama nekk si combat li des bëreetul baal ma concentré si ba rek ma xool leneen waaw. maa ngi leen di gërëm bu baax li wax ni cuubu moom dèjà gërëm naa ko dara xew ma. soobee yàlla yonent bi le 27 danañu gis ñu ko daan gisee ci côté sécurité surtout côté organisation ragal naa ne kuy ñëpp doon xam ni combat bi combat bu mag la. Eumeu Sène moo nangu woon couronne bi ci Bombardier Bombardier ku ne gis na li mu def bërki démb le premier janvier donc euh, on doit s'attendre grand combat Eumeu Sène dëkk Pikine fi arène bi nekk mais Bombardier it waa Mbour. la leen daloon le premier janvier bëgg nañ koo faj ndax ñoom ñëpp autorité ak ñëpp taxaw nañ moo tax lamb ji lamb ju rëy lay doon lamb ju neex lay doon lamb la joo xam ni a ah, comme ni kii séenu rek grand événement la combat bu mag la combat gënu koo saison bi benn combat gënu koo rëy ci gënu la rëy parce que ñaari roi de arènes ñooy daje. père euh, fan am na benn combat boo jógoon muy ci combat Balla Gaye ñu bari que mën naa ñëwaat. ndax gis nañu Eumeu Sène bien vrai que ni Pikine bi passé euh, ci côté mobilisation bi dafa desoon mais est gën a rëy. bii mooy ëpp réussite soo ñetti semaine a ci des. Ah, bii mooy gën a rëy mooy ëpp ah. parce que Bombardier dina mel ni ku dëkk Pikine bis booba. te waa Pikine mënu duñu seetaan Eumeu Sène mësuñu ko seetaan ci duñu ko seetaan ci organisation bi dina nekk. Euh, duñu xaj sax cee sab mais comme fair play bi gën nañu ko amélioré dana gën a dox toujours le 27 et danañu xam ni fair play bi lu baax ci làmb mmh. ñu gis ni affaire date yi date yi août la ak juillet mois d'août bi ñu bari di am lu ñuy tudd que ni euh, mois d' nekk na mois boo xamante ne comme ci taw bi mais percussion premier août Balla Gaye bi nga ak mooy Gris boobu tamit euh, nan koy travaillé ndax combat bu mag la te nit ñi ñu ko xaar revanche. waaw mais affaire nawet ak yooyu moom mbir yàlla la man tëgg naa ci date bu nekk tëgg naa ci diggu nawet août septembre yëpp tëgg naa ci làmb yàlla suturaal na ñu nu yàlla doon suturaale dañ koy ñaan mu gën ñu suturaal parce que Gaston Production mënul dara fii ku yàlla dimbali rek moo fi nekk yàlla rek moo man soobee yàlla le 7 août su neexee yàlla yéen di suñu faagee jàmm danañu gis Balla Gaye ak Gris Bordeaux revanche bu neex a neex suñ demee ba le premier janvier parce que le 25 décembre lañ ko doon def Boy Niang ak Balla Gaye mais comme une semaine ay différence bi ci le premier janvier date de souveraineté la di date boo xam ni Gaston Production moo ko xewaloon ci làmb sax ci la Balla Gaye ak Boy Niang di bëre nit ñi wax nañ ci Boy Niang def na conférence de presse Balla Gaye waa Guédiawaye wax nañu mais yooyu yëpp amul solo li am solo mooy finalité bi man Gaston Mbengue maa fi ne woon bàyyi naa lam te tey maa ngi ni dellu si ci xam nga kon maa weeti sama bopp Eumeu Sène moo ne woon dootu bëre ak Balla Gaye mais ba nu waxtaanee moom waxtaan ak ay mbokkam ñu wax leen dellu si na ci décision Boy moo waxoon ba nu toogee ci kanamu maamam El Hadj Mansour Mbaye dellu si na ci décision parce que promoteur mooy jàpp date promoteur moo moom làmbam du presse mooy jàpp date du CNG mooy jàpp date du kenn moom may jàppal date man am sama fulaak sama fayda koo xam ni du ma joxe samay santene de million pour di ko sànni waaw donc euh, amul problème presse bi nag journaliste yi ak yéen site yi yéen a war di bàyyi di tànc mbër yi ak di leen def loolu loo xam ni wala di leen jéem a rusloo wala di leen jéem a révol révolté yéen lu yàqu ci làmb yéen a ko yàqu. <laughs> merci ah, mën na yomb mën na bañ a yomb làmbar rek ah. mais dinañ préparer tous les côtés ah. ah. waaw état physique am nañu. instant bi pare nañu. ci lépp ci lépp. Ah. waaw. Euh. bi nii nan nga nan nan la ëmb nan la war a mën a ñëwee ndax dafa jóge ci combat ak ki nga xamante ni moom mooy Modou

tey nag nga gisee instant bi làmb ndax Tyson 2. ba mu jugee ci franc ba tey kenn gisu la. waaw am na ay sorties yoo def mais tey adversaire boo toogee Tyson 2 bu mel comme si c'était que ni. Hmm. dañ koo ci làmb man li ma fàtte si làmb man dama bokk si làmb man am si ay sëb victoire kenn amu ko si victoire man dama bokk si làmb ji nag. gars yi nañ ñëw nu bëri bàyyi comédiens yi ñuy tëgal quoi. daal ay làmb ji comédiens yi moo si ëpp. nañu tëgal mbër yi waaw. sa combat muy yan yaay wax. Ah? yaay analyse rek mu yan. non booy sax yan booy. am na ñoo xam te ne peut être bu dee de dégg booy bu naan jox leen ma Tyson de est ce ko dégg ah. lu jafe lay doon. Ah. waaw.